Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mbokki taalibe yi mbokki daara Majmahun Nurayni ñoo leen di ziarat baax di leen joxaat seen wàccuwaay di leen jaajëfal baax si taaxar gi ngeen taaxaru seen seen darah daara Majmahun Nurayni TV tey nag ñu nekkoon si reportage yi si Màggalu Tuuba 1445 ñu taxawoon ak waa relation extérieure di sëñ Babacar Dione kon xam naa dañ koy laaj rek coordination bi nga xam doon def ak. wàccaay yi nga xam ne si ne mi ngi doon def si màggal gi ak tamit nan la ko ak waa relation extérieure nan la ko doon doxee ba xam réunion yi nan la ko doon defee ak tamit yeneen événement yi nga xam si ne yëpp ba boo gisee gan yi ñëwee ak tamit ni ñuy daloo baax a nga xam ne si ne amaana ku ñëw sax doo delluwaat nan la ko waajalee kon sëñ Babacar bisimilah. salaamaaleykum mbokk taalibe yi maa ngi leen bu baax a baax euh, di la fay nuyoo sëñ Pape Thiam waaw ñoo jiitee commission bi nga xam ne que mooy commission relation extérieure gère itam li ñuy wax accueil bi maanaam taxawaay bi noo moom si événement yëpp dañ koy amal moo xam euh, GIAR annuel moo xam màggal Touba yeneen kii nga xam ne dañ koy dañ koy dañ koy amal dañ koy amal xaban euh, liggéey bi nag daanaka nekk yamu si benn période su ma jëlee exemple bu si mel ni màggal Touba dañ koy amal avant màggal gi di tàmbali bu si mel ni coordonné ñi nga xam ne que ñoo fi teewoon màggal daaw ku nekk ñu envoyé message wax la oto fu muy déparé wax la paas bi ñaata la ak tamit li nga xam ne moom la ñuy xaar si si màggal gi. bu fa weesoo tamit fexe ba defar ay vocalisation yoo xam ne dañ koy partagé képp koo xam ne am na yéen a ñëw fi ba nga ne ku fi bëgg ñëw dina jàppandi si si yow bu ñu eggee itam ba dañuy fexe ba képp koo xam ne que daanaka egsi na fii nii boo fi egsee dal doon bu mucc ayib si yow si anam yoo xam ne maanaam moo moo xam si dawaay ñu ni daw ak euh, bendeeg lépp boobu nag dañ koy taxawee dañuy fexe ba képp koo xam ne bëgg na fee ñëw li ma waxoon sànq message yi nga koy envoyé ak vocalisation yi ngir fi waaye itam bu ñu bëggee ñëw fexe ba mu jàppandi ndax am na ay yoo xam ne mooy ànd ak vocalisation yu ñuy partagé bépp mbokktaay bi wax ne bëgg na ñëw fii mu ñëw ba fii amay jafe-jafe ngir agsi fii ñaari joxe nañ ko su bëggee su ñëw mun see wootee ñaar yooyu daanaka comme si woo rek bu ko waxee mu nekk exactement dañ am mbokk ko boobee ku nekk si commission koo xam ko bu ko jëfee tamit na ko indi fii fexe ba ba keroog mu si màggal bi mu nekk si ay conditions yoo ne wax dëgg yàlla mu ci air lay doon si te it am na benn jafe-jafe boo xam ne dañ koy faral di gis mooy ran nit su eggee si benn mbooloo ngir mu intégré day xaw a nekk jafe léegi nag li ñu def mooy mbokk taalibe bu ñëwee fii dañuy fexe ba loolu mu mu maanaam bu ñu ñëwee ñu mel ni kat ñoom ak waa daal xamante depuis ay ati at ñu am ko revenu léegi loolu ko mën a defee mooy fexe ba gan yi bu ñu ñëwee ñu nit koo xam ne mbokk taalibe boo xam ne mooy nekk ñoom ba keroog ñu fay jógee bu ñu yeewoo mu ñëw yeesal seen seen néeg bi ñu nekk yeesal draps xam ne dafa ñu tëdd dafa leen ay diffuseur ngir parfum dafa leen ay anti moussique ngir yooyu dafa leen itam ay ventilo yoo xam ne que maanaam dinañ mën a daal ba keroog xew bu jotee tamit ñu woowee ñu wàcc ñëw xew si biir bâche bi buñ fa jógee tamit ba bisu ñibbi su jotee incha allah ba ñu eggaat Dakar buñ toogee benn ñaari fan bépp mbokk mbokk taal boo xam ne que ñëwoon na dalal si ñu euh, dañ dañ lay woo bu ñu la woowee nemee ko xoolkat ba xam egg si jàmm ba xam nan nga gisee woon màggal geeg ba xam amu woon dara manqué ndax loolu daf ñuy jàppale ngeen màggal de ñu gën ko wàcc gën ko léegi nag loolu nag li ñu ko mën a may mooy am na ay fiches de présence yoo xam ne que oto bi buy départ dakaar dañ koy am bu ñëwee fii itam dañ koy am képp koo xam ne day daw si daara ji dañuy am sa contact sa numéro fi nga dëkk ak sa numéro téléphone maanaam si gàttal si tënk boobu mooy taxawaay bi nga xam ne que commission accueil da koy amal si si si Magal Touba te di di ko di ko taxawal si yeneen si yeneen si yeneen si si yeneen événement yi waaye daal si xam naa si tënk boobu mooy boobu mooy boobu mooy dëgg-dëgg